asalaamaaleykum wa rahmatullah internetu wala boog téléspectateur u Equivox TV wala Vox Arena maa ngi leen di bëggee di leen ziar du mën a ñàkk tey nag maa ngi golf fitness club bu ñu nee golf nag xel na dem ci géejawaay te defe naa ñii ma tiim nii boo xoolee kii xale la ci biir géejawaay macha allah am komba digganteem ak ka nga xam ne mooy dab daan ah idaali ñi nga fa jaar kii ngeen gis mu sëgg nii moom mooy dund bu waalo ba tey waaw dund ngi nii dund nag moom moo gën dee yàlla nañu yàlla may ñuy dund de dug ñàkk ful la waaye nag daa fekk ne rek daa wóorul daal ah <laughs> du mën a ñàkk man ta ñàkk waaye wóorul kii moom defe naa ne géejawaay tey bu ñu fiy wax mbër yu bëri yu fi takk ngemb surtout ci jeunesse yi bari na ci ñu jaar ci ay loxom ci côté bëree macha allah lamb nag des fois ku ne xam ne ni muy doxee ka ca des nee di film mooy màcca moo fi bëri woon daaw mook kële albarka combat bu metti ba arène nationale bëre bay watu ñoom ñaar kenn mënta xam ku daan ba heure bii ñu koy waxee nii mais man ci mbaytin <laughs> ci mbaytin laay njëkk ma maa ngi lay bëggee mbër. waaw ka delloo siyaar am nga jaam sant yàlla bu wér. naka géejawaay ak écurie Waalo. waaye sant nañ ñu ngi fii ñu ngi si jàmm xam nga di def ensemblement di entraîner xam nga mooy loolu. waaw ñun daal ñu ngi suñu ruq di laqatu. mayante doole. waaw mayante doole. ñu wax écurie Waalo. waaw képp ko waaw saison bii nii deux mille vingt et un bi ñu jëm waaw suñu borom defal la ndam lu sedd guy. waaw mais Mbaye Tine mu ci ñaata combat. Mbaye Tine na instant bi Mbaye Tine mi ngi treize combat ñaata victoire. <laughs> neuf victoire. trois défaites. kañ nga dugg ci làmb yow. Euh, sama premier combat 2013 jour combat Ziza ak Jaaji Or laa ko bëri. Jaaji Or Ziza ca Ibamar waaw ah, ah, sëñ Mourou ñaa ko tëggoon. waaw Lamine Samba suñu garaan ne Jaaji Përëm. voilà Lamine Samba ne Jaaji Përëm laa ma jooju la. kenn du garaan Lamine borom ñetteel bi maa ngi koy béggee ah. tey nga ñëw am dab daan idaal ñu ngi tëgg ko kere ñu ngi leen doon présenté ca Pikine. Mhm. looy waxaat dab daan looy waxaat idaal ñu ngi et combat Eumeu ak Lac mi ngeen àndal loo loo ca loo ca xam. waaw sama adversaire dab daan moom li ma koy wax bëriwul quoi ndax xam na ni instant bi làmb ji moom wax rek la ci am moo tax ma dama koy bàyyi ak wax ji mais bu jour ba yàlla xam na ni at bi sama loxo lay yëkkati. yaa wax lii. Mhm. loolu moom lu ma leer. foo teg ah, ci liggéey rek laa ko teg déggu ma fenn nag. Hmm. si liggéey entraînement. kese kese waaw ah, combat am ma seen ak la dëgër nag. combat moom du yomb nag combat bi combat géejawaay la combat capital la. waaw hmm. ah, dama bëgg ñëpp waaj ko. képp ki doomu géejawaay na ñëw jàpp si kombaa bi nag combat bi nax Eumeu Sène dafa dugg géejawaay am nu mu fa def sans may dégg waaw te bi finaal la. final final la. final de per ko du wóor. waaw non allahu allahu baabu Babacar lépp lu ñu war si combat bi nañ ko def. am nga jàmm bu wér a wér a wér borom combat bu métti est-ce que xam ne daaw saison bi yow sa combat. ak Albarka Kayré ak combat Fourrière ak jii ak bébé Diène est-ce que xam nga ne ñaari combat yooyu defe naa mooy combat yi gën a métti daaw ci saison bi passé te gën a neex waaw moom la adduna wax moom la Sénégal wax moom la Babacar wax te yow loo wax loolu la nit ñi wax ah. waaw te loolu nga wax kon naay wax jàmm yow loo wax loolu la nit ñi mën a dégg dama ne loo wax loolu la nit ñi wax waaye loolu fàtte nañ ko nag di demaat si bis bu rëy di si ñaan ndam waaw loolu yaakaar naa bañ si paree lañ si pare waaw mais Babacar ñu ngi waaj bis ñu ngi waaj bis bu rëy di ñaan yàlla yàlla defal ñu seen ndam lu sedd guy guy guy guy guy. sa diggante kan toujours pare dégg naa nga jëlati. waaw toujours pare laa jël. lu tax nga bëgg lu métti. waaw mais làmb ji Babacar yaa gën a xam ne lu nooy amu fi boo jëlee lu nooy tamit bu yàgg yàgg lu métti ngay mujj. waaw balaa caam nga jël lu métti rek mu jeex. yow moo tax nga bàyyi fi yaboo yi rek dem ci jën yu diis yi rek. jën yu diis parce que kuy wër jën bu mag ngay. waaw kay kuy wër jën bu mag ngay wër. yaboo yi kii la lay indil ndoxum siti da ngay wër jën bu mag bu lay yokk vitamine ñoom jalañ ñoom sëgg ñoom ñoom coof waaw yooyu la ñii di wër xalaatoo combat bu metti comme ni sa bii passé woon méttee barki alxuraan bii passé ba ma si pare laa si pare bii ma jëm nii ci laa nekk nii bii dina yomb trop ci kàttanu yàlla xam nga dàq bëri toujours période da nga gën a pare maanaam lépp lu wàllum lépp lu wàllum sport man maa ngi ci te yaakaar naa nit ki boo nekkee ca la nga war a nekk doo ragal dara te maa ngi ca la ma war a nekk ku tëgg combat bi. Dieye production. Dieye Sène. waaw Dieye Sène borom. l'homme de Kuluk. borom Kuluk Kër Mor Sène. est-ce ne bokkoon nañ garage ma ak moom. Eh, Babacar yow yàgg ñaay nga nag de Diaz <laughs> Babacar la de. ah boobu xam nga rek boobu ñun ay booy lañu. waaye nag Babacar. mais nag dara ñoruñu. loolu suñu làmb ju mag ñuy pare. mooy ban muy Lac de Guiers 2. ngeen bis de. bis googu la ñuy waaj. l'homme de si nga ki nga xam ne day lëmbi géej waaye rek boobu ba tey. dama ne bis boobu noonu. la lombeem di jeex. lëmbe ba ma seen. barke alxuraan. maa ci da ngaa waat de. barke alxuraan bis boobu lay bàyyi lëmbe Babacar. ba ma seen lim duggee ja waaye bëri na te nit mën la ko fi dara daa mel ni de. Babacar dama ne. billaahi jour boobu lay bàyyi lombe ëmma seen. mais foo teg lii. waa parce que ñun xam nañ fi ñu ko teg lan la ñu waxoon la dëgër day taxaw combat bii la dëgër ay bëre mooy jàpp mooy daan. yaa enseré lii yow. barke alxuraan. mais Mathieu est dugg ci géew ba. dama mooy bëre mooy jàpp mooy daan. mooy bëri ji mooy jàpp ji mooy daani ci kattanu yàlla bu bis baa loxo la dëgër la ñuy yëkkati. loolu bu ñëwoo teg ko foofu dund yow loolu am nga loo ci war a wax de gaa yi ci ginnaaw. la ngay bëre. lat mooy bëre mooy jàpp moo gën a bëgg moo gën a soxla. a ah, Eumeu Sène mi jóge ci defet bu métti na. Eumeu yàlla def na ne mos na jël titre roi des arènes. waaw loolu moom am na. mais Lac de loolu rek lay gis si àdduna am. titre bi la soxla lu mu mënti am lu ne titre roi des arènes moo gënal. Ah, soo ko tegaloon building kebe. waaw. incha allah rabi su ñëwee da koy fax jàll. parce que lag ñu fàttali ne moom Pikine la mujjee woon. waaw fu mu ñëwati duggati Pikine. xam fu nii seetul dara ci làmb lu dul. waaw jàpp Eumeu Sène tegee ko ne le waxuma sax mu ñëw bëree ko daan da koy jàpp tegee ko ne dafa am lu ne ci kanamam. xanaa yéen dafa am lu ngeen maas lak fi mu ne nii. dara desew ko lu dul roi des arènes moom am. xam seen i bëri woon da xalaat naa kon combat bi dina jeex. lu bëri incha allah rabbi. xeex bu ànd ak bëri. lépp lay amul leen lu mu bàyyi fa mu toll nii. yow am nga combat. non man amaguma combat ok looy xaar. ñoom ñoo may xaar loo rek. ñu ne nga xaar. nañ ma xaar rek ana sa sëriñ bi sama sëriñ bi démb rek déggante nañ. kan Omar Omar waaw mu ngi ma naan ma tey ma ñëw xam naa ni su ma jógee su ma jógee fii rek foofu laa jëm. baa mu ngi lay ñaanal. gëj na maa ñaanal nag loolu mooy sama problème moom loolu ma lañ loolu la ñu xuloo moom ñeen lay ñaan xam nga du la ñaanalee nii moom ñeen lay ñaanalee ah ñaanu poos waaw moom ah, loolu lay ñaanalee gën a wóor daf maa gëj a ñaanal nag ah. mais yow damay ñëwaat ci yow ci sa combat bu mujj defe naa yàgg ñaq jariñu combat ba defe naa ne eh, waxatuñ ko jeexoon na booba wala sax wala des na waaw Babacar yow moom damaa xamul nu mu lay def rek waaye combat ba dama ne woon wax dëgg yàlla dooruma ci waxati ndax waaw la ma waxoon yëpp depuis 9 février xaw ma février la woon ba léegi la ma ci wax yëpp wax naa ko ci waaw léegi kon dama ciy rebondir fenn rek fan yi gis naa la nga génn ne xaw ma wax Père Khadim Sam daf la daf la yoral xaalis wala <laughs> Babacar même loolu sax dama ne woon doo ma ci waxaat. non déet ma fii nag Babacar a toog di wax ak yow ma bëgg lu ma leer ma. non rek. waaw wax Equivox ngay waaw Equivox moom wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen tawfeex taysiir mais wax dëgg yàlla loolu dama ne woon dootuma ci wax. waaw dafa desal xaalis. waaw desal na ma sama xaalis muy reliquat ba moom léegi moom kenn waxatu ko comme léegi gannaaw jox nañ ko ko. Hmm? li ma waxoon démb ak barki démb baal ma ko tey baal ma ko ëllëg loolu sama ñàkk la. doo ko baal beneen sama beneen xaaj boo xamante ne yoral na ko loolu tamit baalu ma ko Hmm. bu fekkee ne xaj na ci bàmmeelam tamit mu jël mais du ma ci waxati daal du ci wax du ma ci wax du ma ci wax. xaalis boobu équivalent wu ñaata lu mu toll. waaw mat na ci 500000 waaw. reliquat bi mooy 500000 wala. non non du reliquat bi loolu CNG moom jox na ko. lekk na xaalis sponsoring la wala. waaw du ko xaalis sponsoring sax loolu sous table woon mu war na jël avant combat bi. waaw. Euh, reliquat moom tam dañ ko nangu. waaw reliquat tam dañ ko nangu <laughs> mais sant yàlla rek. sant yàlla mais est-ce que dafa naa fi nekk nii aj bi sanction bi ñu leen tegoon dindi nañ ko de. waaw sanction bi jeex na sanction bi jeex na fi mu ne nii moom ñu ngi entraîné di xaar rek ku tëgg suñu combat. est-ce que de say encadrement wala say menaces dem nañ discuter ak bu bees bi ci lu jëm ci mbir moomu comme dindi nañ sanction bi ñu jox leen reliquats yi yooyu. non suñu ménagère moom moo moo doxoon ci diggante bi doon dox loolu noonu loolu la teg loolu rek di ci sant yàlla daal Babacar ndax loolu daal amul wax ndax loolu teewu ñoo dund di ngi sant yàlla boo ñu gisee ñu di sant Cheikh Fall bu baax a baax a baax parce que gis naa ko mu ni ku lay tëkku fan yii waaw non yow ñàq xam accident rek moo tax ma bëri moom toog deux années balance bëriwuma am fu ma tolloon ci làmb ko mais sama sama xam nga ne jël na ñàq barki Seydina Mohamed ñi ma war a ma war a bëril du du dañ ma war a jox ci gars yi nga xamante wax dëgg yàlla ñoo ne ñoo fi të wala bu ñu amee combat ku ñu amul combat doo ne la man ci ñooñu laa bëgg ñooñu ñam mooy ñoom Yékini Junior ñoom Malick yi nga xamante ni presque trois ans bëri ñoo xam ak quatre ans ak ñeneen ñu mel ni ñoom ay ñoom Forza ñi hmm. combat njarndeem yooyu laa bëgg ñi nga xam ne yu saf yooyu bu ñu nee tey Alioune nga combat su ma tëddee sax di nelaw nelawul ak yooyu yooyu laa bëgg combat yooyu laa bëgg waaw Malick Niang daal nga bëgg a jànnanteel ay coup wala Forza wala Yékini Junior waaw ku ci ñëw baax na xam nga laal ndaal Alioune diisul wallaahi diisul barki Serigne Bamba diisuñu de Yékini Junior lambam du yomb de waaw ku dégg wax ji naa mën naa mën naa yomb ci yow mais diisul ci man wax yàlla te ku ci kuñ la ci tànnal ci kuñ la ci maanaam buñ la tànnal ci ñooñu daal doo bëgg. ma ne ñoo gënal mburaake ah loolu leer na. mburaake na mu neexee. waaw mburaake ñoo ñoo ma. gerte guñu wal boole koog suukar. <laughs> waaw neex na de yàlla boo am sax. <laughs> <laughs> ndax yow si jur nga bokk wax dëgg yàlla. waaw waaw mbër yëpp la ñaanal war a ñaanal ak làmb yëpp la war a ñaanal ndax bi nga ñëwee fi nga fekk làmb barki alxuraan karim sa toogaay bi nii da nga koo yokk bu baax a baax a baax a baax di ñaan tamit sit bii nga nekk nii ni nga si duggee nii mu nekk sa mbégte nekk sa tawféex nekk sa yaatu nga ba nga xamante ni loo songu daan ko daal nekk fi site bi jóge fi dem ba waaw ba bitim réew ak <laughs> na ko am ko te yàlla na ko yàlla defal te la koy ñaanalee ndax borom baax na xàmme ma mbër mu mag sa micro lii rek wane na ko te mënoon nga ñëw fekk ñu saal bi la dëgër jël Alioune Seye 2 bañ ci boole la tawfiq ak taysir sa caméraman xulle waaw addina noonu la Père Max da ko daan wax hélas ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi mbaam gàtt na waaye ci jur gi la mbër yi ngay gis nii ñooy nekk ëllëg mbër yu mag moom bi muy topp ci ginnaaw Lac de Guiers numéro un ak ñoom liiru jaan boobu xale la woon mais dem na tey ba nekk magu ëllëg àddina noonu lay doxee moo tax rek nañ ci boole ñëpp rek parce que làmb la ñuy def 100 pour cent loolu moo jekk moo rafet dëgg yàlla bu mag boo gis bu ndaw la woon waaw xëyoo rek nekk bu mag da jaar ci bu ndaw ci kii bi lañ bokk ku nokk bokk ci gétt gi naan ci sooy wala nga dégg ci neefere yi affaire la demee uh-huh. mais tey su ma ñëwaatee ci biir géej am mel géej waaye ren ku ne ràngoo nga lu diis uh-huh. Balla Gaye ràngoo na ji Lac de Guiers ràngoo na Eumeu Sène Gouye Gui ràngoo na Reug Reug Abdou Diouf ràngoo na Gris yaa ngi dégg mbaytin Tine ràngoo na daan màcca ne na toujours pere la jël <laughs> est-ce que yaa ma la <laughs> mu mel ni kon géej way marle sax ràngoo na euh, kële ne ko réel ah <laughs> mu mel ni les deux daal waaw les deux daal laa gisagul mu jël combat hmm. ak ka nga xam ne nii moom mooy yow di ci profité waal di leen jaale waat père Balla Gaye di ñaan yàlla yërëm ko taxare ko aljana ak rakku lees deux boobu bi desa woon temps yële passe ci géej gi moom yàlla dafa def ndeysaan sama booy la woon dafa ma daan béggét lu bare bari yàlla na rangoo ay combat seen yëpp rangooy combat loolu du dis ren ci yéen waaw ndax ñu békkee micro war nañ koo jaale di ko ñaanal wax dëgg yàlla ndax lépp fu géej waaye tollu tey moom bay na ci waaram bu baax a baax a baax a baax ñu koy ñaan yàlla fépp fa mu fa mu tëdd rek dàqal ko fi mu jógee yàlla defal ko sutura defal ko tawféex ci dina Seydina Mohamed waaw rangoon nañ lu diis waaw lu diis diisul ah. lu diis diisul ndax bu ñu defee lu ñu war a def rek bokk ndey bokk baay rek wallahi du diis hmm. te am naa ci yaakaar ne képp ku ci am combat rek yàlla dina la may ndam hmm. waaw combat yooyu yëpp tiitoo ci ci benn Balla gay Bombardier amoo ci benn tiit non wax dëgg yàlla amoo ci benn tiit ku xam Balla Gaye Balla Gaye mu pare rek ñëw taxaw pare fépp hmm. ñëw taxaw noo non Bombardier diisul ci kanamam du diis ci moom non diisul ci kanamam diisul ci kanamam guy gi rëg rëg am na ñu ma ay micro ñoom ne nañ guy gi rëg loolu du komba fu ñu teg loolu. parce que dañ ne moo gën a pare moo gën a nekk xale moo ëpp te day daan. am na ko wax ci leen Babacar di. mais la euh, euh, ñooñu dañoo wax seen wax rek ndax làmb moom li Tyson di waxee rek làmb bu taxawee coach yi dañuy bëri ñëpp ay la ñuy nekk ku nekk am nga wax sa xalaat mais ku nekk guy gi euh, guy gi rëg-rëg du combat da ngaa waxee far wala nga wax lu la neex rek mais guy gi rëg-rëg bi nga xamante ni topp na fu nekk fu ne guy gi moo xam na ne loolu combat xam na ne combat la waaw loolu xam na ne combat la di ñaanal guy gi yàlla may ko ndam lu sedd guy te gaaw ci barki Seydina Mouhamed mhm. hmm. Gris 2 Abdou Diouf waaw Gris 2 Abdou Diouf tamit la même chose Abdou Diouf mi ngi xam nga mi ngi waaj ñu ngi ànd chaque jour di dem diine di dem saal ci kanam tuuti moom mu ñëw mi ngi waaj li mu war a waaj Abdou Diouf tamit mu pare mel na mu war a mel Gris 2 mënu koo téye mënu koo téye yow moom wax nga li nga soxla ñu ngi lay ñaan nga am combat di ko ñaanal bépp mbër bu amul combat mu am mais léegi su ma damay des ci boom benn boo xam ne nii moom ci sa biir moom bopp daf laa gën a sës moom muy lak mu lekkati avance ama seen waaw kooku sama seex la sama doom la sax laay wax ndax la waaw moom dañoo yàgg defandoo lépp waa kooku moom du ay mbër rek moo ñu boole. ma koy ñaanal suñu borom mi nga xamante ni moo am ndam te koy joxe yal na ko jox la dëgg mu am ndam la sedd guy te gaaw ci barke Seydina Mohamed wax dëgg yàlla dégg nga xale yi nga uuf de xale yi ne nañ moom surtout match ne na arbitre ba suuf liwut moo tere lagay bëre mooy daan daan waaw nit ku nekk li nga li nga gëm rek moom ngay wax ba keroog yàlla def li muy def mais ñun li ñu entraîné wóolu nañ ko te gëm nañ ko te sa waay ni mu tàmbali nii su ko continuer yaakaar nañ ne euh, làmb ji du yàgg daal te dinañ ci am ndam ci kàttanu yàlla waaw ama seen da ngeen xam secret bu koy daan bi yoon ba ne da ngeen koy daan comme ni xale yi waxe non secret ànd say mbokk mburu mbapat la de waaw mburu mbapat la <laughs> mais Lac de Guiers bëri na fekkee mburu mbapat yu bëri wax dëgg yàlla kuñ ci jox rek nga noonu Lac de moo dàq dóor nga Lac de Guiers ñëw la ci bëri Yékini kan koo nekk mburu mbapat xanaa képp kuy bëre bëre mbapat moom Yékini moom mooy sa mooy sa patron mooy sa patron te gis ne la dëggee ni ko ko naxee daal. mais ëmm problème bi mooy ëmm dafa bëri ay tànk géejawaay te daa mel ni ba tey amagu fi lu ko naqare. waaw loolu yàlla da koy def ëmm seen champion la wax dëgg yàlla wax sa mbaaxu waaye du waañ sa wax dara maa ngi koy nuyu ndax moom sama sama waay la door bu xam nga bu bu dul la Lac de Guiers muy bëre kooku sama waay la ndax ñoo doon bokk di entraîné fële Escaf wax dëgg yàlla ñu am ay yu rafet mais teewul gën a jege gën a yey Lac de li ñuy kooku wax naa Lac de Guiers du sama xarit du sama kii sama kooku sama doom sax laa mën a wax waaw ndax dañoo defandoo lu bëri daal ñu yéene ko ndam di ko ñaanal combat bi dugg na géejawaay nag duggati géejawaay ñu ngi ñaan yàlla bii Lac de Guiers freiné ko freiné comme ni mu freiné woon Boy Niang ci kàttanu yàlla waaw. yow bëri nga mas ngaa bëri ak Modou Lo waaw bari naa ak Modou Lo. arène waaw arène waaw. mu daan la waaw mu daan waaw. Ama Balde mosu ngeen a bëri fenn. non Ama Balde mosu ñoo bëri waaw. kon xam nga leen. waaw du ma ne xam naa à 100 pour xam naa ci ñoom lu bëri ndax ñoom seen petit combat ba seen grand combat yëpp fii la ma fekk. mais seen coow ta même bi ñuy bëri mbapat tamit ma fekk. Ah. waaw seen combat mbapat da seetaan. non seen bëri mbapat seetaanu ma ko ci xanaa ci ay vidéo dafa mel ni laa ko gis. Modou génn na ne du ñeexu ñebbe maanaam dànkaafu na ama ama ki sañ ko fan yi ci ay vidéo yu rëcc muy mu yuy génn mu mel ni mu nga cëb liggéeyam tey tontu waaw noonu la am moom bu taxawee ku nekk la nga sentir ne soo ko waxee mën naa mën naa nagama sa sa kii wala mu yóbbu fitam rek da ko wax Modou bu ne du ma ñeexu ñebe kenn loolu moom la concerné Ama su génnee nekk ci ay entraînement am looloo ko war ku nekk rek nekk ca la la war ba jour ba que le meilleur Ama loo koy moytuloo ci Modou mu bañ a naagu rek. di jàpp na yaay xale yaay xale waaw di jàpp na yaay xale yaay xale war a ñëw rek ne kii làmb ñaar moo koy def xam nga soo làmbee mu dëgër nga taxaw kee làmb nga ngeen naxante loolu la quoi waaw. Moodu lu muy moytu jaamaa moom. Moodu ah Moodu moom tamit mu bañ deme demee de confiance rek jàpp ne yaa mën yaa mën yaa mën ndax làmb moom naagu bokk ci quoi. bokk ci daal waaw làmb naagu naagu bokk ci. waaw boo naagoo rek mën ngaa daago te boo daagoo moom mooy loolu. olof nee na ku naagu daagu te ku daagu ñu raw la. waaw ñu raw la waaw. loolu daal laay bañ mu dal ko ci làmb ji. waaw saison bii gaa yaa ngi coow daa war a ubbi dafa war a ubbi est-ce que saison bi war naa ubbi ak corona bi yow loo ci gis. waaw saison bi war naa ubbi ba mu war a ubbi sax dafa yàgg wax dëgg yàlla ndax boo xoolee ci domaine yëpp ñu ngi nekk seen activité ñun làmb rek ñun ñoo newu suñu activité ñoo newu suñu activité wax dëgg yàlla te war nañoo te ñun ay boromi njaboot lañ nekk loo xamante ni nekk ay soutien famille bu ñu bëriwul duñu am xaalis kon gars yi war nañoo jàppale xam nga ñu xool ban méthode la ñuy tëral pour làmb ji ibbi ku ñi amoon combat daaw mën a bëre xam nga ñi amul combat am combat bëre dafa jot daal gars yi bëre. dafa jot waaw. ok su ñëw na ànd ak Vox Arena di lu bees du sax lu bees Equivox ak Equivox TV yàgg na fi am na fi ñaarata tuuti ànd ak Vox Arena ñu ñëw ren indi benn tournoi bu ñuy wax G5 du ne sax tournoi mais ay combat boo xoolee Garga 2 ak Mama dañu ciy bëre bés boobu Franc Tyson 2. ki nga xam ne moom mooy fourrière bu Grand Yoff ak Baye Mandione Junior rakku Baye Mandione euh, moustique bu yi ak Noiro booy euh, nu mu tuddati xale ba dëkk Bawal nu mu tuddati alias Biram ak caatu ngéwél loolu Vox Arena ñëw def ko ren noo ko gisee. waaw dañ ciy sant yàlla di leen ñaanal rek wax dëgg yàlla ñu naan mbir moom ku ci bokk boo yokkul rek yaa wàññi wax dëgg yàlla ñoom bi ñëwee ñu ngi yokk nag ndax làmb yooyu ñu tëgg noonu gisuma làmb bu ko bu ko bu ko gën a neex ci ci saison bi bu fekkee nañ li leen war. ñu leen di ñaanal li tax ñu dugg ci rek ñu am ci lu kawe seen njort ci barke Seydina Mohamed ndax lamb yu neex la wax dëgg yàlla Garga ak Mama Lamine nag dafa doyoon ndax boo xoolee ci départ bi nii rek waxante yi rek nga xam ne làmb ju nar a neex la xam nga euh, kii nu mu tuddati Frank Tyson 2 tamit loolu njar ndéem la waaw loolu ndam njar ndéem la ak yeneen combat yi si topp yëpp yi neex la daal ñu leen ñaanal réussite daal te yow Frank Tyson sax xanaa ko fa daan war nga fa mën am adversaire de waaw waaw pour wala pas man daal maa ngi fi pour làmb sëñ bi képp ko xam ne làmb boo ne maa mu raisonnable wallaahi ma maa gën a neexu utal combat ci làmb ji boo xoolee ñi ma bëril ci ginnaaw ñëpp nga xam ne man aw ma problème adversaire kon Alioune Badara Diouf ñëwal xool si Alioune Seye utal ko adversaire wala mu xaar tournoi bu ñooñ buñ bëree bu jeexee waaw mooy kii nu mu aajowoo rek <laughs> waaw nu mu aajowoo rek kontaan naa ci yow tawfeex tawfeex Babacar kontaan nañ torop jërëjëf jërëjëf waaw kookoy Alioune Seye numéro 2 ak Mbaye tin Mathieu ak Dundu ñoom ñëpp ku nekk wax nañ a ah, olof nag nee yóbbante galgal elas te te làmb ëma seen lañ sànni galgal bi surtout xale yi waaye ëma moom xam naa ne daal miin na seen kër ga géejawaay ndax nag dugg na fa duggati fa duggati fa bii yoon nag dinañ day génn loolu nag li ci kanam raw li bët loolu la olof Njaay wax waaye nag li ñuy wax ci man ci lu jëm si lu baax dama naan lool si ñoom la nekk parce que ñun dañu ñëw si làmb rek pour def suñu liggéey ñu waa làmb tam xajal ñu kon képp ku nekk ci biir làmb wala ngay Sénégal ak foo mën a nekk rek ñu ngi lay ñaanal jam di bég ci yow di wax ne li ñuy soñ wax yëpp ay soñu la parce que hélas ku leen sangul sa taar la bëgg te ku naan la jërëjëf rek xëy na daa bëgg nga gën a yokk sa ay jéego kon yàlla nañu yàlla dimbali musal ñu lafal ñu cat ba ñu gën a mën a yokk suñu ay jéego rek di wax ne kon Vox Arena Equivox TV téléspectateurs yi bëgg nañ ñëpp ñaanal ñëpp jàmm.